alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf alambiyaai walmursalin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabiahum bi ihsan ila yawmi ddin mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi nuyu mbooloo mépp di leen ziyaara di leen ndokkeel nuyoo bi nu ciy jiital sun kilifa gu baax gi toog muy cheikh Mouhamadul Mamoun bu cheikh Mouhamadul Fadal di nuyu mbooleem mbokk yi mu fi nekkal muy sëriñ Bousso bi ak i rakkam ak i doomam di nuyu mbooleem mbokki taalibe yi di leen ndokkeel ci bés bu tëdd bi kon waxtaan wi nu amoon yéene tërale ko ci ñeenti tomb ginnaaw xaddima bi ak mottuli ñuy waxtaan ci himma muy itte kon tomb bu jëkk bi li ñu ci jàngale bu soobee yàlla mooy leeral lan mooy itte tomb ñaareel bi ñu di ci jàngale lan moo xàjjale diggante itte yu kawe ak guddi mébét ak mébét tomb ñetteel bi danañ ci leeral incha allahu lan mooy sabab nit ki mën a am itte tomb ñeenteel bi dinañ ci indi ay échantillon ci borom itte yu kawe yi fi jaaroon ñeenti tomb yooyu incha allahu ginnaaw muxaddima bi ci lañu bëgg a teg waxtaan wi muy guddi goo xam ni dañ koo jagleel xaside sëriñ tubaay waaye jëkk ñuy xuus ci waxtaan wi dañuy wax ni diine xam-xamu diine ñaari xaaj la ñetti xaaj la waaye ñett yi dañuy fab benn bi dugal ko ci benn bi muy ñaar ñaari xaaj la benn bi day xaaj bu ñu war gëm gëm bu ñaareel bi lu ñu war a jëf la pour ferndeel ngëm gi moo tax ma ni bu dee ñetti xaaj la ñaar yi muy lii lislaam ak lihsaan dañuy ànd tënku ci benn bi te mooy gëm la ak jëf pas-pas ak jëf juy firndeel li nga fas yàlla nag tabaraka wa dafa warlu digganteem ak i jaam bépp jaam boo xam ne gëm na yàlla te ngëm ngi déggu ci moom mu firndeel ko kem kàttanam ci ay jëf sun borom dana ko defal teraanga teraanga fokk mu may ko karaam ci àdduna ak ci àllaaxira kon bépp jullit bu gëm yàlla di jéem dara ci ngëm ga rek sunu borom daal defal teraanga moo xam nag xam nga teraanga ji yow teraanga ji la yàlla defal ndax xam nga ko wala xamoo ko teraanga joo xam ni day dolliku ci kaw teraanga jëm telloon doomu aadama benn nga xam ko mbaa nga ñàkk koo xam nit ñi mën nañu koo xam mën nañu koo ñàkk xam waaye teraanga ji moom saa bu nit ki gëmee yàlla rek te ciy jéem dara rek dana ko teral mu mel ni nag teraanga yooyu sunu borom teral doomaadama bi di ko teral ab jaamam bi ko gëm di ci jéem dara day wuute ndax nit yàlla yu mag yem ñoom seeni karaama day xaw a nuru mujisaati yonent yi Sëriñ Tuubaa julli gu mu julli ci biir géej gaal gi di daw mu yëkkati der bi teg ko ci ndox mi taxaw ci te gaal gi réew der bi benn yoon muy def saabu bu sujootee bu siggee jëbi taq suuf loolu karaama la Sëriñ Tuubaa tàggat gu ko suñu borom tàggatal jaww ci monde lépp wuy si ko nit ñi wommatu jëm si ci moom ci façon boo xam ni kenn ma sa gis lu ni mel loolu karaama la naka noonu tàggat gu ko suñu borom tàggatal alal ak ni mu jafee ak ni nit ñi bëggee alal ci seeni xol mu tàggatal ko Serigne Touba bañ ba ñuy doñ doñi di fab alal di ko indil mel ni ay xorandoom ci waxtu yépp muy wërsëg wu suñu borom def te du ko du ko rekki ba mukk ci àdduna loolu teraanga dafa wax ne wërsëg wi suñu borom moo ma defal wërsëg woo xam ni moo ma ko defal mu jóge fa moom te du ko rekki ba mukk mooy rasaxani min indihi bila salab yàlla wërsëgan wërsëgu bàyyi ko fa moom du ko rekki ba mukk loolu ci karaamaat yi da bokk waaye jinne yi diine jinne yi nga xam ne ay jullit lañ ci jamono jamonoonteeg moom yët dañoo aju ci moom loolu ci teraanga yi ko suñu borom ter la bokk mu wax ni biyata taallaqa alladina aslamu min jinni asri duuna man lam yuslimu jinne yi jébbalu ci sama jinne jamono ci man mii lañu ñu aju loolu ba tey ci teraanga yi suñu borom teral Sëriñ Tuubaa la bokk ma wax nag teraanga yooyu ma tudd yépp nag ak ay téeméeri téeméeri teraanga yu yu yu am yu ko yàlla defal taxut moom mu jàppe ko teraanga ba ba ba mu reconnaître muy teraanga moom benn muy mbindum loxoom mi karaamati xattu yeddi kon karaama yi bari na loolu waaye benn bii la ci site ni mooy sama karaama karaamati xattu yeddi wali jazab adamahu rabbi bi xattin fan jasab delluwaat ni karaamati xattu yadi fii xidmatil mu ayyadi sama karaama mooy sama mbindum loxo ci liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon loolu rek doy na teraanga ju suñu borom teral mbindum Sëriñ Tuuba jar na it kon luñ ko jox ci gëdd rek yayoo na ko te jar na lu ñu ko jox ci gëdd ñu yokk moom mbindum sëriñ muy mbindum sëriñ bi suñu borom def ci tarbiya doomu aadama daf ko ci defar wa bi kitaabatiya rabbi rabbi kulla mutaalixin sama mbind mi na nga ci yar képp ku ko yër te yàlla tax li wa ci rabbi waaye nag defaru gi gi ñuy wax gi bi wax mu nekk ci biir xasida yi nag tekkiwut di wax njaaxum yoo xam ni adduna dala ci jam mbaa mu jam ci sa tariixa mbaa mu jam ci jëm sëñ bi defaru gi bi wax du googu defaru gi muy wax tam nekk ci biir xasida yi mooy façon defar gi nga xam ni moom la sëriñ lu doon wax ni suñ bàyyi ceerno daf noo yar daf noo jàngal ba ñu ne ar mu yar nu ba ñu ni nër mu yeenu ba ñu ni jar façon defar googu la sëñ bi def ci biir xesde yi mu di ko defar ab tali waaye dafa nit àggul foofu sax lam ko war a jariñ jëriñi ko ko ba tey des na yëmut foofu waaye dafa wax ni képp ku texe boo gisee sama xasida yii te gisee ko pas-pas lañ tey góobe su mbaram dana la ko jox kullu saidin qad raa xasaidi bi li'tiqaadi waaye gis ko nag ànd ci pas-pas faasa bil xasaid kon lañ tey góobee dina ko am moom ci jëmmi bopp moom Sëriñ Tuubaa mu waxal boppam ni lépp lu ma wax dëgg la te xel nangu na te xel daf koy nangu lépp lu mu wax dëgg lay doon te boo nee teg jëfandiku sa xel sa xel daf koy nangu loolu mooy lahu xitaabiya walan aqula illa allati xaqan bada maqula lépp lu may wax rek dëgg lay doon te xel daf koy nangu moom nag moo wax ni képp ku bëgg jariñu àdduna ak alaaxira dénk naa la nga sax ci di jàng xës yi ma def ginnaaw atum bac si muy gànnaar ji ci yéen ja njareem dafa wax ne moo gën lu dul alxuraan ak hadis loolu sëriñ bee ko waxal boppam loolu kon mooy li ma bëggoon rek ñu jiital ko mu jëm ci xaside yi ndax ginnaaw guddi guddu xaside yi la moo ko moom te kër gooy dugg ne danga war a jaar ci bunt ba moo taxoon ma def ci laltaay bu ndaw noonu ci lu jëm ci xaside yi waaye sunu boroom dañuy digal ni bu ngeen na ngeen di dimbale yàlla in tansurullaha yansurkum bu ngeen dimbalee seen borom seen borom dana leen dimbale mu mel ni kon laaj na am njàng ndax yàlla tëlewut ana nu ñu koy dimbalee ndimbalu kuy sunu borom di dimbale doomu aadama moom la am ñu xam ne waaye li li liñ xamut lu muy tekki nag mooy nan la nit di dimbalee yàlla boroom xam-xam yi wax nañ ci wax yu bari ñii nee nañ mooy dimbale diine ñii ne mooy dimbale sa mbokki jullit ñii ne mooy dimbale yonente bi ci abooteem sëriñ Abdul Ahad radiallahu anhu daf ko firi woon firi mu yéeme ndax dafa waxoon ni li muy tekki mooy sàkkal yàlla aw lay mel ni kon wax jooju sàkkal yàlla aw lay waxtaan wi ñuy bëgg a wax tey foofu rek li jëm am benn boroom xam bu ñuy wax Muhammadul Xasaali dafa wax ni euh, sàggan gu ëpp ak xalaat bu gàtt akuk tayel ak nelaw yu bari ak toog loxo yi neen mënta ànd ak ndimbalu yàlla di wàcc ndimbalu yàlla buy wàcc mënta wàcc ci kaw yooyu moo tax tey ñu tànn tomb bu am solo ci dundub nit ku mën a doon doon tomb bu am solo ci dundub société bu mën a doon muy itte am itte ndax dogalub yàlla dogal yàlla yi di ci am dogal yoo xam ni yoon doomu aadama nekku ci yàlla moo koy dogal ca nam ko neex lu mel ni nit ki gudd sa sa guddaay guddaayu doomu aadama bi maa ab gàttaay maa ab rafetaay maa ab ñaawaay maa fa nga dëkk ci dëkk dëkk bi nga dëkk ak fa nga fa nga bokk askan wa bokk loolu sa yoon nekku da ngaa judd rek gis sa ci noonu waaye nag dafa am ci ci dogale yàlla yoo xam nag fokk da koy teg ci sabab tànkub doomu aadama bi dafay jaar dafay jaar ba jàll suñu borom teg ca ab doole dogal yàlla yi am na ci yoo xam ni suñu borom dafa koy dogal te yoonu nit nekku ci am yoo xam ne bala ma ko dogal day xaar ba nit ki bëgg ko sabab ko mu dool koo teg ci kaw bëgg googu ak sabab googu pour dogal ko loolu nag mooy lu mel ni lu aju ci yi nit di coobare di ko def moom am commerce walla ngay bay walla ngay sàmm walla ngay napp walla ngay jàng lu man doon ci yooyu rek nu sa itte toll ca yooyu rek noonu la résultat bi toll bu sa itte manqué résultat bi manqué da cee am yoo xamante ni sunu borom daf koy dogal ci kaw nu nit nu ci nit ki amee itte rek mën naa taxawee noon waaye nu ci nit ki ñàkk itte mën naa ñàkk noonu moo tax tom bu am solo la ndax dama seetlu ni naka africain yi lu leen dal boo ko nattalee ak ñii nga xamante ñoo lañ bokkale addina bi ni ñuy sonne da nga gis ni kon ci kaw itte la tegu ak bu ñàkk itte ñi dañu am itte ci lépp ñi ñàkk itte ci ñi ci lépp moo tax Sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee itte jooju la doon jàngale moo ko taxaw a jóg itte nag gis nañ ko ci lu bari ci mbindum Sëriñ Tuubaa mu di ko tudd Isaa ñi ñi kawe ci xeetu yonente bi sallallahu lay melal ci itte ju kawe di wax ni kullun lahu himmatun yarqa biha abadan ila azizin muizzin si futuhaati saxaaba yi lay tagg ak kilifa yi yu mag yi di wax ni kenn ku ne ci ñoom day am na état ju kawe joo xam ne ci lay yéege jëm ci suñu borom yii saa it muy melal boppam ci itte ji suufe ci ni ko nit yàlla yëpp defe ak torox la ci jullu di wax ni fu ma toll damay nelaw sama bët day nelaw sama xol di nelaw te samay itte yi jugut jëm ci mbir yu kawe loolu daf ko wax ala sabili tawaado tanaamu ayni wa qalbi kulla azminatin wa himmati lil maali gayru murkinati cheikh mahamadou amin Diop dagana di nettali moom itam ci irwaaw nadim di wax ni kenn ci kilifa yeeko ko nettali ku ko doy ne ko sëriñ bi ci boppam moo ko xamal ni ko nen bi moo waxanteeg man ni ma na yar sa taalibe yi ci itte te bulen yar ci am njàng na nga yar ci itte te bu leen yar ci am njàng nanga nga seet kenn ku ne ci ñoom la yàlla ci moom nga yare nga yare ko ko wa rabbi kulla wahidin minhum bi ma yeleeku bihi loolu sëriñ mët lamin moo ko nettali ba tey naka noonu it alquran yàlla di ci digal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko na nga muñ ni boroom dogu yi muy ulul azmi mina rusul boroom xam-xam dañuy wax ne ñooy boroom itte yu kawe muñ gu toll ni gañ muñoon na nga ko muñ di ko digal suñu borom di ŋàññi lool ñi ñàkk ite ba lu ñuy def rek feeñal ko ci wala yaatuuna salaata illa wahum kasala mu ni ba ci bu ñuy julli ji sax ak taayal la ñuy demee wala yunfiquuna illa wahum kaarihuuna bu ñuy dépassé na it ci ak e, force ci ñàkk sañ bañ ñu koy def waaye duñ ko duñ ko jox itte baat yooyu yëpp nag dafa waral rek day laaj ci nun ko ñu gëstu itte mooy lan dëgg-dëgg lan mooy itte itte ji tax yàlla wax itte ji Sëñ Tuubaa doon wax itte ji nga xam ne moom la ko yonte bi waxante moom ni ko na ci yar ay ñoñam itte jooju mooy lan itte boroom xam-xam yi wax nañ ci wax ju bari Ibnul Qayyim day wax ni itte de moo daan doon njëlbeenuk iraada iraada ak nameer ak murit ak taalibe bi guy doog a tàmbali itte woo bi ngay itte woo dara loolu la ñuy tuddee himma daani waaye nag dañoo mujj jagleel ko dayob iraada bu ñu demee ba li nga doon bëgg nga dem ba ca njobaxtan la mënatu mënatu ca dolli benn centimètre lu ci dolli ko rek loolu mooy itte itte mu mel ni kon sëriñ bi firi na ko ndax bi mu waxee ni suñu borom daf maa yàlla yonante bi daf maa digal ni ma yaral sa taali bi ci itte te leen yar ci am njàng dafa doxee ñoom ci sóobu sóobu tàmbali dox mu mel ni kon itte li muy tekki dëgg-dëgg mooy la ngay bëgg nga sóobu di def lu la ko may loolu la ñuy tudde itte Sëriñ Saaliw daan ko firi firi firi bu leer ci yoonu murid di wax ne yoonu murid di yoonu ñëw leen nu dem la waaye du yoon nag du yoonu dem leen ma ñëw yoonu ñëw leen nu dem la waaye du yoon dem leen ma ñëw muy tekki rek kon sóobu di dox itte bu ñu ko waxee mooy nga sóobu ci li nga bëgg mu taxaw nga fas yéene mu taxaw jox ko nag la mu laaj mu mel ni ite ñaar la am na ite ju kawe ak ju suufe itte day kawe day suufe itte ju kawe mooy lan mooy lu mu mën a doon nga tànn la ci gën a kawe gën ci ci misaal bu ñu ko doon misaal rek ci mbirum àdduna dañuy wax ni boo jógee di jàng bul bëgg benn diplôme bu dul ba ci gën a kawe muy doctorat boo jógee di dugg ci politique bul bëgg lu dul doon président lu mën a doon daal nga seet la ci kawe la ci gën a kawe nga bëgg ko loolu moom la ñu tuddee itte ju kawe ittaju kawe mooy yu suuf yu ndondowaan yëpp nii nga rëcc ko jàll seet ba ci gën a kawe nga bëgg loolu la ñu tuddee ittaju kawe kon ki réy itte dëgg day tànn yi gën di moytu yi yées am na ku ñuy wax al al asbahani day wax ni boroom itte ju kawe mooy ki nga xam ni du yam rek ci ittey mala ittey mala nag mooy euh, lekk ak naan ak nelaw akub jaxaso ju jamono bu ne damay wax ni nit itteem war naa weesu fexe ba defar kër fexe ba amul dund teg foofu njabootam di leen sàmm loolu nit itteem war naa weesu ko ndax li fekk weesuwoo ko rek weesuwoo ko picc yi nga gis ni picc ndax picc yi danañ fexe ba tàgg tàgg mu baax teg fa seen njaboot di wut ab dund di ko jox nit dañoo bëgg itteem weesu ko weesu yi mala am na benn woykat bi ñuy wax muti na bi dafa wax ne isa xaamarta fi sharafin marumin fala taqna bi ma duna nujomi saa bu jógee di sàkku tedd nga fexeel ba la gën a kawe biddiw ya daal bul bul taxa mukk te àggoo ci bul taxa mukk te àggoo ci biddiw ya bu fekkee da ngaa jóg ngir sàkku tedd nga di wax it ni fa taamul mawti fi amrin xaqirin ka taamil mawti fi amrin azim ndax deekat boo xasee ba ñëw nga doon sàkk lu ñàkk solo dee ak ngay sàkku lu gën a rëy dee ca ñoo tolloo caf ka genn xanaa loolu moom la wala fi wax ni kon booy dee ca àll na la gay ndere kon jullit bu kawe it dëgg nag ñetti mbir da koy ci ab doxam jullit bu itam kawe ñetti ñetti mbir da koy boole ci ab doxam doxam muy day xër lool ci lu ko amal njariñ waaye dimbandikoo suñu borom ak ñàkk découragé ñàkk tayal te loolu la yonent bi digle yonent bi dafa digle ni na ngay xër ci lu lay jariñ tey dimbali ko yàlla te bañ a décourage bañ a taayal moo tax nit bu amee itte dëgg lum lijjanti lijjantikuwut day jóg jaajuwaat bu ko lijjantee lijjantikuwut mu jóg jaajuwaat bu ko doon def ñeenti téeméer yoon sax bu mu tax mu taayal bu mu bul bàyyi waaye nag dafa amu yoon ba tey ndax yoon wi nga jaar échec boo doon jaar téeméer yoon day échec li ñuy bëgg mooy boo jaaree mu échec nga jaar nga wàcc ko tuuti jaar ci benn yoon boo échec nga wàcc ko jaar ci yoon waaye yoon wi nga jaar échec foo toujours rek la fi nekkoon moo fi nekk waaye nag booy def booy sàkk bul découragé saa bu échecgee jógal jaar weneen yoon boo échecgee nga jógal weneen yoon ba mu mat téeméer yoon bu ko bul découragé dana ma sulijante ko yonte bi loolu la digle kon itte kawe laaj na farlu ak jom farlu nag li muy tekki mooy lépp lum laaj cib coono nga nangu ko ko jox jom it li muy tekki mooy lum laaj ci ak muñ nga ko nit ki fokk mu mu am itte kawe waaye itte ju kawe laaj na farlu farlu mooy lum laaj cib coono nga nangu ko son jom it li muy tekki mooy lu lu lu metti metti rek nga muñ ko pour am li nga bëgg kon itte ju kawe toujours rek ñi mas a jàll ñëpp ci la ñu jaar pour jàll ñi mas taxawal dara ci kaw suuf ñëpp ci la ñu jaar pour taxawal liñ taxawal borom itte ju kawe nag toujours day fekk mbooloo muy nelaw mu yeele nit mooy am itte fekk mbooloo muy nelaw mu mu leen pëkk-pëkk ñu daal ni ñokket nit bu itteem kawee dëgg-dëgg day mujj day taxaw taxawaayu mbooloo comme ni suñ borom waxee ni inna ibrahima kaana ummata ibrahima umma la la ko waral mooy itti ju kawe moom la waykat ba wax wa qiila rubba rajulin ka alfi am na kenn nit ku mel ni junni nit wa rubba alfin qiimatan ka uffi waaye junni nit ñu doon saro yi day am ñoo xam duñ taxawal dara kon loolu mooy tomb bi doon leeral lu aju ci itte tomb ñaareel bi nag liñ ci bëgg leeral mooy lan mooy xaajal diggante itte ju kawe ak guddi mébét ku ne xam ne ahlu tasawuf dañuy tagg itte ju kawe waaye niñ tagg itte ju noonu lañ ŋàññe gudd ay mébét di di ju suufe waaye noonu lañ tagge taq taqsirul amal te mooy gàttal say mébét kon lan mooy xaajal diggante itte ju kawe ak ay mébét itte ju kawe luñ tàgg la mébét yu gudd dañ ko ŋàññ lan mooy leen di xaajale may wax ni borom xam dañuy wax ni saa buñ ne mébét mooy li jëm ci àdduna yi kese kese kese saa bu yemee ci àdduna rek mébét lay teg moo tax toujours dañuy boole guddi mébét ak xër ci àdduna noonu la ko yonent bi sanson boole ci benn hadis yonent bi dafa wax ni ñeent ak texey di la ci nit ki mooy bët bu fendi boo xamante ne du toq ak rankoñ du ci toq ak xol bu wow ba du yërëm ba am benn yërmaan du ci bàyyi ko ak xër ci àdduna ak guddal say mébét mu ne yee ñeent yooyu ak texey di lay indil nit ki texey di te mooy coono bu dëppal àdduna nag day aw yoon wu ñuy jaar di jàll fañ jëm mooy alaaxira ab jullit nag dañuy bëgg am ngërëm lépp mooy na gëm ni àdduna gii dafiy yorom bi jàll waaye fële la jëm loolu lañ bëgg ab jullit di ci dox di dox ci gëm ni àdduna ab jaarukaay bi muy jaar waaye ma nga jëm ca kër gale muy alaaxira loolu mooy mooy ngir miñ bëgg jullit di ci dox la ca des mooy mu xam yit ni ëllëg moo gën tey téeméer yoon moo gën foofu bu ko defee nag ci kaw xam googu day doxe ci àdduna ne kuy dox ci aw yoon aw yoon da nga ko godronge waaye loo ko defar defar rek bëgg yoon wi mën a tax ba nga àgg fa nga jëm moo tax nga di ko defar waaye jubluwoo fi jubloo di fi tëdd di nelaw aw yoon kenn du ko defar ngir tëdd fay nelaw ku koy defar da koy defar ngir mën fee jaar pour jàll pour godron waaye jubluwoo pour toog fi loolu lañ bëgg ci ab kon Ah, di jëf ngir àdduna lu toll nii li nga fiy sax ëllëg nga jëf ci lu toll ni la nga fay sax ni ko Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa digle wax man li oxra qadra ma tabqa gada fiha na nga jëf ngir ëllëg kem la ngay sax ëllëg waaye nag mu des lan mooy jëfi àdduna ak lan mooy jëfi àlaxira ndax buñ jógee ni adduna man ni damay commerce ñu ne kon day wut adduna damay sàmm dañuy wut adduna ab mason laa day wut àdduna damaa jàng métier sàngam damay wut àdduna ndax ndax kon métier yooyu yëpp loo ci jàng rek àdduna ko tax a jóg buñ nee alaxira yi ñu ne kon mooy dem kàbbar di julli baa ngay woor baa natt asaka baa ngay eh, jàng alxuraan baa ngay sikar baa ngay jàng xasi ndax lee mooy jëfe alaxira lii di jëfe àdduna ndax noonu demee wala ëpp na mu mel ni ñu bari ci nit ñi nag boo nee jaamu yàlla dañuy jàpp ni kon dañoo war a bàyyi lañ doon def lépp dem jëli dollub xasida ba mbaa ñu jëli jukkib alxuraan ba mbaa ñu jëli kurus ga tàmbali wér mbaa ñu kabar di jëli loolu rek dañuy jàpp jàmm yàlla te fekk ne adduna ak alaxira ba noo xam ne dañuy wax ni adduna ak alaxira du ñaari yoon amul yenn yoon woo moo lay jëmale ci alaxira wi yoon jëmale ci adduna même yoon wi la mi ngi mel ni nga jëm Ndakaaru kii jëm Thiès kii jëm ndula jóge Tuuba fii ngay jëkk a jot mooy àdduna fee nga jëm ca sori mooy alaaxira wenn yoon wi la te loolu li ko firndeel mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu ma di jihaad ay ngànnaay lay wut def plan na mu koy defee na la ko yëfar yi defe te yoon wii alaaxira la jëm waaye jëm àdduna mais ñu bokk même yoon wenn yoon wi la àdduna ak alaaxira du ñaari yoon wenn yoon wi la pas-pas bi nag mooy wute te noonu ko yonent bi sallallahu alayhi daan defe boo xoolee mag ñi sëriñ Tuubaa yar doxe wala ñu daan dox ci misaal sëriñ Saliou jënd ñaar téeméeri tracteur ak nangam pour bay tubaab bii doon wut àddina bu doon jënd ñaar téeméeri tracteur ak nangam bu doon jënd bu bëggoon a bay loolu kenn lay jënd waaye nag jëm yéene ji mooy wóote boo jëmee ci adduna mbaa nga jëm ci àllaaxira yéene ji képp mooy woote yéene ji ndax bu fekkee da ngeen di xare coono ba may sonn pour gagner moom la yéefar bi sonn pour gagner man ma jëm ci yàlla kay jëm ci adduna waaye lii wax ji mooy adduna ak àllaaxira du ñaari yoon du ñett du ñeent wenn yoon wi la la ciy xàjjale nit ak nit nag mooy yéene ji moo tax Sëriñ Tuubaa daal wax ni yéefar bii sujjóotal xërëm bi ak kii sujjóot ngir yàlla yéene képp moo leen xaajale waaye jëf ci moom benn kon jullit dañuy bëgg mu yaatal ay yëngutoom domaine yépp de ci yëngutu bu dee bay bayal bu dee commerce nanga commerce bu dee farlu ci xam-xamu scientifique yi xam-xamu technologie na ci farlu sa kam kattan comme na ci yëfat bi farloo mbaa ngi raw ko te yéene ci liggéeyal diin moo tax am na ku ñuy wax Fatxalaa Guulan ku yéeme Turki ki la nekk mi ngi dund ba léegi benn taalibeem boo xam ni dafa ñëw di ko won kër gu raa gaa baax gum tabax mu ni ko nag kër gi baax na waaye boo ko joxoon yàlla moo gën mu ni ko ni ma koy jox yàlla mu ni ko da koy def ab jàngukaay doomi julli di ci jàng ba mu ko defee jàngukaay doomi julli di ci jàng jànguñ fa alxuraan de jànguñ fa hadis technologie bi dañu fay jàng waaye dafa xam niñ ko ittewoo ni ko jël di ittewoo mu jë jëng jëmale ay yëngutoom ci côté boobu jëmale ay yëngutoom ci ni jullit yi ittewoo technologie bi ittewoo nañ xam-xam médecine ittewoo nañ nangam imaam Xasali jàmbat na ko ba taay imaam Xasali daan wax ni di sonn ci bànqaasi fiq yoo xam ni ay werante képp lay indi te réewum jullit moo dem lu ci ëpp ña fay faj mbaa ñu yor fa wàllu xam-xam yi ñuy ittewoo lu ci ëpp ay yéefar la ñu doon jullit yi bu ñu bàyyi woon xel diine te gën koo dégg dégg dégg ñu gën a yëngutu ci xam-xamu technologie boobu te liggéeyal ci yàlla moo gën ñuy yëngutu ci xam-xamu fekk boo xam ne ay banqaas la yoo xamante ni warante képp lu indi ak i bañante ak xuloo ak lépp nag ak dégg diine lay teg ci ni yéene mooy xàjjale diggante jullit bi ak yéefar itte moom lañuy rawante yàlla dafa am lu mu bëgg ci nit ki muy itte aku farlu ku ko am rek yow la yàlla faral bu ko jullit bi amee yàlla faral na ko bu doonee ab jullit te amu ko it kee amuk farlu ak itte moom la yàlla faral ba ba ñuy dem ci kanam yàlla nag yàlla xool ba xam lu ci lu ku ci ku ci nekkoon ci lu leer moo tax jullit bi ak yéefar bi ci seenu sàkku mbirum àdduna dox ci yoonu àdduna laa jub di wax ni xaajale gi mooy yéene ci la ca desit mooy la ñuy wutawaat nag mooy jullit bi jóg di wut adduna te li muy ci àdduna mu jublu ci jaamu mu jublu ko jaamu yàlla dana wute lool ak yéefar bi ni mu koy wute ndax jullit bi yéefar bi mën naa mel ni kuy taxan guddi rek taxan guddi nag mooy mën ngaa jël ak mat mën ngaa jël ab gattax mën ngaa for sax ba for jaan waaye jullit bi nag bu jógee di yëngutu ci adduna ngir jaamoo ko yàlla day bàyyi xel ne yàlla ëllëg bala mu laa laaj foo dugal alal ji da lay laaj foo ko jëlee ba noppi nga xam da nga bàyyi xel fi nga ko jëlee ba mu leer nga dul ko dugal fa leer comme yonent bi dafa wax ni nit ki ëllëg balaa ndëggoo ma toxu danañ ko laaj ñeenti mbir sag ndaw ci loo ko jeexal liñ la xamaloon am loo ci def alal ji nga amoon foo ko jëlee ak foo ko dugal ma ne jullit bi mën naa yëngutu ci mel ni ku yëngutu ci àdduna waaye bu fekk yàlla jubla wut du mel ni ab yéefar di taxan guddi rek lu mu gis rek jël ko déedéet fokkum bàyyi xel la jullit bi dana wute ak yéefar bi ci yéefar bi di dajalee alal ji di ko aar di ci sonn ba faatu ay ndonoom donn ko duñ ko ci sant duñ ko ci gërëm te du ci am payu yàlla jullit bi lum sonn ci dajale alal mën naa sonn ay at ngir dajale alal mën ko financé ci genn ngoon baa genn bëccëg ngir jëm yàlla kon kooku différence bi tey dina feeñ foofu dina feeñ ci diggante jullit bi ak yëfal ci ni kii li muy dajale da koy dajal di ci sonn di ko aar di ko fi wàcc te bu ko wàccee ñu donn ko duñ ko duñ ko sant ko gërëm jullit bi moom da koy dajale te lu mu bari bari mën naa xëy financé ko ngir jëm yàlla mbaa mu gont financé ko différence bi tey day nekk ci pas-pas yooyu moo tax yëngutu ci mel ni kuy wut àdduna dajale ay alal di ci sonn di liggéey liggéey ju kawe di ci sonn waaye bu fekkee ne am na pas-pasu liggéeyal ci yàlla rek kenn du ko tudde ak xër ci àdduna waaye itte ju kawe lañ koy tudde moo dañuy bëgg nit ki kaweel itteem ci fànn yëpp ba noppi nag delloo lépp ci yàlla li ñu jubloo daal mooy nit ki bu fekkee yoon wi lay may am koom mbaa mu lay may pouvoir ci àdduna mbaa mu lay may doole yoon woowu bu fekkee wàccut yoonu yàlla noo ci sonni rek day dugg ci biir cadre du yàlla bu fekkee nag yoon wi lay may àdduna mbaa mu lay may pouvoir bi dafa wàcc dafa dàqonteeg li yàlla bëgg nag kon jullit bi des doon ak faqiir di ñàkk di sonn moo gën ci moom muy dajale loo xam ni da koy indil daan yàlla ëllëg yonente bi sallallahu alayhi dafa wax ni jullit bi am doole moo gën te moo gënal yàlla ki néew doole daan ñoom ñëpp nag ñu baax la ñoom ñëpp baax waaye nag alxuraan dafa wax ne wa aiddu lahum mastataatum min quwa mooy lu ngeen man ci doole rek nañ ko li lijjanti pour waajale ko seen diggante ak yéefar léegi nag alal doole la pouvoir doole la xam-xam doole la moo tax yooyu benn julli waru ko bàyyi di ko bàyyi ci loxol yéefar rek waaye nag itte ju kawe dëgg dëgg dëgg nag boroom itte ju kawe dëgg dëgg dëgg nag dara du ko doy lu dul àgg ci yàlla moom la xay Xayyim wax ni itte bu kawee day aju ci yàlla te bu aju ci yàlla nit ki dëggu sellal diggante ma boroomam du mënatee def ndànk du mënatee muñ waaye diir bu gàtt yi nag la mu bëggoon dana ko am diir bu gàtt bu fekkee dara gàllankooru mu wax ni ñi gën a kawe itte ci adduna bi daal mooy ñi nga xam ni seen bànneex dafa aju ci ak xam yàlla ci maarifa ma wax nag ni loolu kon day danañ ci xamee ittey Sëriñ Tuubaa ju kawe ndax moom dafa wax ni mosuma dañ dir bu ma xelloo di sàkku ak xam yàlla walam azal munsu xaqaltu taaliba maarifatan billahi jalla xaaliba mosuma dañ di sàkku ak xam yàlla fa jultu bayna al ulama wal awliya may wëreelu nag diggante borom xam-xam yi ak nit yàlla bi niyati wa amali wa xawli ak sama yéene ak sama jëf ak samay wax itte ju kaw jooju nag ci la yaroon magi murit yëpp ci la yar ay njabooti bopp mi doomi bopp mi murit bu ne sax mu digal la nga aj sa itte ci yàlla muy ngërëmul yàlla isil muridu laa yuridu abada gayra rida rahmani ab murit du bëgg lu dul ngërëmul yàlla abadan nam leen ci yarawan moo tax sëñ bay jaxat di wax ni xarit yàlla yombul te moo am njariñ wutal yàlla yow mii ba dee mbaa nga am li tax yàlla yombul ku koy wut ta am ci lëf soxla doo am ci moomus ngërëm dalay woon mayam yépp te yër sa xol moyul dëgg muy gis ci sab xol mbañam ku bootoon kajoor ak bawol ak jolof te bëggit lu dul yàlla baaxul ndaxam lu dul yàlla yàlla ku gën dëgg yow wutal yàlla yow mii ba dee mbaa nga am karaamaaki xar baax aki xam-xam ak alal dog na mbooloo mu fonkoon a dem ña daan naaw akoy dox di wax ci di di wax looy garab ku cay seeroo boppam mbiram farfeyam di dox ci ndox ak jàpp suus yi taxañ ak ay sël bu aw nit du may nit ngërëm lay may ngërëm muñ lawet aw ndigal di jéggal ku lay mooy te far ko yërëm balaa yàlla mee dénk jaamam bi dafay génne duniyaa bu wér ci xolam ku duniyaam ba nuyen dellu xolam amee ful béréb kañ bu aw yow dem ci itte ju kawe mu ne xarit dëgg yow bul defub tëddkat ndegam bëgg ngaa def nituk tedd nga ndegam bëgg ngaa tedd bul tëdd yow te woppoo bu wér ndaxte kuy faaxu nga bàyyil faw biddanti te yeewu njël ku dul yeewu njël kat du jot cant ga nanga nga yeewu yow jëkk waxtu fajar di fàggu yi ngërëm nag ba jot noddu ga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 ñetteel bi kon mooy lan mooy sabab itte kawe lan mooy tax nit ki mën a am itte kawe la ci jëkk mooy xam ak xam ndax nit ci am lu dul mën a bëgg lu mu xamut nit ki mënta bëgg lu mu xamut fokk xam mooy tax itte kawe moo tax yàlla bi muy digal yonent bi sallallahu alayhi daf ko digal ko na nga ñaan sunu boroom mu dolli la ak xam waxul rabbi sidni ilman waaye bokk na ci li sabab itte ju kaw yi jàng alxuraan ak di ko setantal xam ña fi jaaroon lañ daj ba am lañ am ak ña ñàkkoon itte la leen xañ la leen la lañ lañ ñàkk la leen ko xañ setantal googu dina tax itte nit ki kawe waaye bokk na ci liy dolli itte it jàng siira yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam fam jaar ak coono yam ci sonn ak lañ daj ñoom loolu bokk na ci liy kawee di ittee nit ki naka noonu bokk na ci liy dolli yi nit ki muy jàng doxi jaar-jaar yi nit ñu jaar nit ñu rëy ñi fi jaaroon ñu fi jaaroon ba jàll te rëy muy jaar nga seeni jaar-jaar di xam fañ jaaroon loolu bokk na ci liy taw itti ju ko Ibnu Xayyim day wax ni benn day wax ni damaa jàng ci ak tey téere yi téere yi nekk ci école bi ma nekkoon ma gis ne lu mat juróom benn junni téere mi ngi fi mu jàllat ma jàng ci ak tey téere Abu Hanifa ak téere al di waaye xool gi ma ko xool jariñaat jariñaa lu bari ndax la ma jëkk jariñoo mooy xame naa ci seen dox seen jaar-jaar xame ci seen étude ju kawe xame ci seen mën a mokkal xame ci seen mën a jàmm yàlla xame ci seen xam-xam yu tumuraange xame naa ci loo xam daal ku yarut loolu li ma yar doo ko xam moo mujj sax nag boo mbooleem ñi ma nekk dama leen a ci ay itte yu damaa xeeb seen it waaye bokk na ci li dolli ittee ba tey di ànd ak borom itte yu kawe ndax tayal day wàlle tayal tayal day wàlle ñàkk it day wàlle moo tax fokk nga tànn borom itte ju kawe nga ànd moom ndax nga mën a am itte ndax nit koo xam ne boo àndeek moom loo wax mun la loolu ëpp na kooku day wàññi ittee nit ki booy wut da ngay ànd ak àndoo boo xam ne loo def mu xeeb ko loo ko ni aca mun la aca àndoo mel noonu moo mën a soññi ci am te suñ borom ci alxuraan daf ñuy digal ñuy tànn ay àndandoo ya ayuha alladina amanu taqu llaha wa kunu maa saadiqin na ngeen ragal yàlla te ànd ak way dëggu yi yéen ñi gëm yonente bi it dinu digal ñuy tànn ay àndandoo ndax am na benn xadis boo xam dafa xam ne bul ànd ak kudul ab julit laa tashab illa muminan wala yakul taamaka illa taqiyun saw ñamit kudul ku ragal yàlla bu mu ko lekk waaye nag ngir nga xam ni kii ab julit la bu dëggu ngir nga xam ragal na yàlla yow yaa koy test nag si testé bopp loolu leen sëñ bi digal sëñ bi li mu digal mooy wax tabiri rijal xam li soxba bala ngaa ànd ak kenn na ko test wala tusaaxib xumran aw zara ba bu ab dof bul ànd ak boroom xemamtef yu bari waaye booy tànn ay àndoo it bul ko tànn ci col gu rafet bul ko tànn it ci e, nit ku jekk waaye na nga xool jikko ndax nee na laa tasdari l abda li xubxil malbasi maa taxaddudin wa wa kusri dansi bul xeeb nit ki mukk ngir col gu ñaaw ak tër bu bari ndax nee na bari na ku tre fees dell ak yàlla bari na it koo xam ni boo ko gis da nga jàpp mooy xutbu raxa mooy xutbu jamono yi fu ne aw turam àgg fa te moo golo ñooyam fa yàlla noonu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yee saxaaba yi àndoon ci ay nelaw ñu buur ba bari na ma noon loo xam ne ànd guñ ànd ak borom itti ju kawe moo tax ñu man naka noonu Serigne Touba bi mu ñëwee ci réew mi tayal gi mu fekkoon fi mu yóbbu murid yi ku ne xam na ni itti Serigne Touba mooy dox ci murid yi ba léegi waaye nag jamono bu ne dañoo war di yokk wetees moo tax benn bis ma toog Serigne Saliou di waxtaan ak moom ni ko ma ne ko Serigne Touba li muy wax ma ni mallakanil Qur'aan ak man mallakanil kitaab dafa mel ni sunu borom def na ci kiimaan goo xam ne murid yi dégg gi am ci alxuraan néew na ko ko ci am mu ni ma waxuma la ab murid waaye képp ku jamonoonteeg moom leeru xel ga nga am ci dara jaam la ko sunu borom defaree daal di ndax li mu wax mooy man bii yu niiru kalkalal muhaasiri ci sama daraja la yàlla leerale xolub képp ku jamonoonteeg man borom itti ju kawe nag liy màndargaam mooy ku jaxasoog moom mu puus la boo ko gisee képp ab xaalam situation yi bi muy dund dalay puus ay waxamit daf lay delloo ci yàlla comme ni ko ibnu xataillaahi waxe ni laa tashab man laa yunhiduka xaaluhu wala yadulluka ala llaahi maqaalu bul ànd ak kudul koo xamante ni boo àndee moom ab xaalam dana la puus ay waxamit dina tegtal yàlla waaye nag xam-xam ak xaal sunu borom moo ko sédd la am na ñoo xam ni am nañu xam-xam waaye amuñ xaal bi am ñoo xam ne xaal bi lañ am waaye amuñ xam-xam bi am ñoo xam ni dañoo boole xam-xam ak xaal amuñ ñàkk ñaar yëpp xaal bi xam-xamu kese-kese bu antoog xaal moo indi debaay yi yi ngeen di gis nii ak werante yoo xamante ni mujj ga mujj dañuy werante ba ni sibire kenn ku ne dem waaye xaal bu antoog xam-xam it mooy moodu moodu yi nekk ci bitim réew te nu mënuñoo dugal benn tubaab mbaa ñu dugal kenn la ko waral mooy am nañ xaalis mais mënuñu leeral kenn lu ko mën a convaincre pour mu dugg ci pour mu dugg si ci biir yoon waaye ni ñu amee xaalis bu ñu ko amee woon xam-xam fu ñu dem bu ñu fa yendoo képp mboolem tubaab mën nañu dugg si loolu mooy li waaye nag dadi ab tubaab bu ñëwee bëgg a dugg waxoo ko dara lu weesu suñu tubaab morom te waxoo ko nu mu ñàkkee moroom waxoo ko leer loolu du dugal kenn kon xaal bu ëntagu xam la kon ki gën mooy ki boole ñaari melo yi ñaari melo yi nag la ko mën a maye mooy nga xam jëfe ko al ilmu wala amalu mu mën a maye mu mën a may nit ki mu boole ak xam ak xaal borom itte yu kawe nag ànd ak moom day am njariñ lool comme ni nga xamante ni ànd ak nit ku baax noonu lay ame njariñ waaye ànd ak ku ñàkk ite dafay yàq lu bari comme ni nga xamante ne ànd ak ku bon dalay yàq lu bari yonente bi sallallahu alayhi wasallam day misaal ni jataayoo ak ku baax ak jataayoo ak ku bon ni mu ko mën a misaale jataayoo ak ku baax mi ngi mel ni nga jataayoo ak ku yor parfum parfum di ko jaay kooku nee na benn mu nga jënd mbaa mu may la boo jëndut mayulee xet gam xet gu neex gi jógee ci moom di ñëw moom mënu la ko xet kon tooge ku baax loolu lay jënd benn nga jënd mbaa may la boo jëndut mayulee xet gu neex gi bàyyi ko ci moom di ñëw mënu la ko xet waaye jataayoo ak bon nag ni mu ko mën a ni mooy mi ngi ne li nga toog ku upp ab furno ku upp furno moom nee na boo toogee moom benn aw fet ñeent dana jóg lakk la mbaa mu lakk si yére bu la lëkkul si tàngooroo moom mënoo fexe mënut dox si diggante moom fokk mu tàng moo tax jataayoo ak baax noonu deme jataayoo ak bon noonu naka noonu jataayoo ak borom ittee mbaa ku ñàkk ittee noonu lay wàññi nit ki te jaww muy bii ah muy environnement bi day jeexital ci ci nit ku mën a doon day jeexital ci ay jëf day jeexital ci mën a puus ittee nit ki mbaa mu ñàkk ko ittee ndax ku ne xam na ni Sénégal ay jamono mag ñi buñ ma saan bay ba mbay mi jeex bañ def ko ca sàq ma jàpp nañ ni jeex bu buñ xëyee dañ dem ci pénc ma toog di xoole ba ngoon jot mu mel ni buñ teeloon a xam itte ju kawe ba fi mu toll nii ndax ay jamono nawet bi daan am muy taw ak doole waaye buñ xasee bay ba am luñ dund rek jàpp jàpp nañ ne foofu la itte war am muy am nga loo dunde kon day mel ni ñooñu am nañ part de responsabilité coono bii gone yi sonn léegi ndax bu fekkoon ni itte jañ war am amoon nañ ko nëga ni Sénégal day wees fi mu toll nii waaye dañoo xamutoon lu bay bu noppee ñu def ko ci sàq ma dem toog di xool li noot bépp dañ koy toog maa moo tax ma ne jawwu day jeexital ci itte ki di jeexital ci ñàkkloo itte nit ki jaww day jeexital ci mbaaxum nit ki di jeexital ci mbonum nit ki am na benn waay boo xam ne yonent bi sama moo ko nettali ni dafa am ku rey juróom-ñeent fukki bakkan ak juróom-ñeent daal di laaj ne damaa bëgg tub kan moo ëpp xam-xam ci waa ci kaw kaw suuf ñu seen kuy jaamu yàlla te amul xam-xam ñu tegtal kooku jàpp ne borom xam-xam ñu ne ko kee moo fi xam-xam mu ñëw laaj kooku ne ko damaa rey juróom-ñeent fukki bakkan ak juróom-ñeent ndax su ko déedéet yàlla dina mu rey ko mottalee ko téeméer jàll laaj ni kan moo ëpp xam-xam ci ci kaw suuf ñu tegtal ko borom xam bu wóor mu dem kooka ni ko waaw sa diggante tuub kay dara du ko fi saa bu tuub yàlla jégal ne ko waaye nag fi ngay dund day suuf soo xam ne baaxul ña fa nekk baaxul da nga fay toxoo dem dëkk sàngam ñooñu ñu baax lañu nga ànd ñoom dund ba mu fa jógee dem ba ci yoon wi yàlla jël ruu gi bi mu faatoo malaaka yërmande yi ak malaaka yi mbugal yëpp jëkkante ko malaaka yërmande yi wax ni comme mi ngi seetal xolam jublu ci yàlla ngir tuub si daal ñun ñoo ko war a yóbbu yërëm ko malaaka yi mbugal yi ni kii ñoo ko yóbbu ndax musta def lu baax ba ñu werante yàlla yebal jëmm ju ñëw àtte si leen ni leen lu mu doon ñu ñu wax mun leen da ngeen di natt fa mu jóge ak fa mu jëm fu mu ci gën a jege ngeen boole ko bañ ko nattee mu gën a jege fa mu jëm ci benn sebre képp ñu boole ko ci suuf soosu day tekki ni jawwu ju baax day jeexital ci nit ki jawwu ju ba nit noonu ànd bi muy wax nag ànd bi ñu jubloo wax nag du àndu daje nii rek ci ab train mbaa ngeen daje ci avion mbaa ngeen bokk ab fonction bu ngeen di liggéey yooyu taxut ñuy wax ànd ànd doo dëgg-dëgg mooy ki ngay tànn fas yéene ànd ak moo xam ab sëriñ la moo xam ab xarit la moo xam wëllëre la kooku li ñu jublu nga tànn bu fekkee ànd romban rombante ci ab train képp la nag mbaa ngeen bokkandoo duggandoo ci avion bi mbaa ngeen bokk fu ngeen di liggéey mbaa ngeen day ci commerce ma di jënd ak jaayante loolu moom mën ngaa séq ak ñoom lu te ni loola bu jeexee jeex may wax nag ni dund fii ci Occident réew yi Occident yi ñi fiy dund bu fekkee mën nañoo sos benn environnement bu baax comme nii nga xam ne gone gu fi juddoo di gis lii mën naa am sax mu jàpp ne maa nga biir réew bu fekkee loolu mën naa nekk moom amul benn jafe-jafe loolu xéwal waaye nag ku ne nag war ngay jéem sa kem kàttan pour lu mel nii di taxaw environnement diine janga dund ci Sénégal ak lañ la yare woon ak la nga xamoon nga fexe ba kere jaww joo ko mën a dunde bu mën na nekk bu mënti nekk nag la gën mooy gaaw tox ci bu fekkee sa itte matéo ndax borom itte ju kayo moom mën naa fekk jaww jépp mu soppi ko borom itte ju kawe dëgg ku yàlla def mu am itte dëgg mën naa fekk jaww mu soppi ko comme Sëñ Saaliw soppi woon jamono ji ku ne xam na ne jamono Sëñ Saaliw bi mu woote xel comme ñuy gor di dijj ay ëkk di gor ay garab nit ñi dañoo jàppoon ni fàtt murid yi fàtt nañ liggéey jàpp na daal boo leen xaalis ñu jox ko waaye liggéey fàtt nañ itteem ju kawe moo tax murid yëpp gëmaat dem dijj ay ëkk itte ju kawe kon mooy fekk jaww mu soppi ko ma ni ju kawe moom mooy fekk jaww mu soppi ko bu fekkee nag sa itte kayut li baax mooy nga mën a sos environnement bi mel nii mbaa nga tox waaye Afrique muy sowu jant bee surtout Sénégal ña fa dugal diine ay commerçant la ñu woon yoo xam ne dañuy ñëw di commerce si waaye seen itte nag ak seen pas-pas ci lañ doxale diine ba diine tasaaroo ci biir sowu jant boobu loolu la suñu bay jaxate wax ne murit bu dëggal dafay dog lëf ne lëf du ko dog day cor lëfit dal di waaxu yi wéy ni lef du ko cor murit bu dëggalee mooy fil dara kay waaye dara du ko fil kon tomb ñeenteel bi ñu indi ci ay échantillon ci borom itte yu kaw yi ka ci jëkk mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dir bu dirub ñaar fukki ñett ci la taxawal li mu taxawal am na sax ñenn ci tubaab yi xalaatkat yi ñuy wax ni Muhammad dir bi mu taxawal diine ji doxub junni at la waroon doon mu dox ci doxub junni at puus ci saxaaba yi dirub ñaar fukki at xare ak juróom-ñaar yoo xam ne moom moo jiite xare ba ñam yabal ci ay armo te mat na ñeent fukk ak juróom-ñaar saxaaba yi donn ko ci itte ju kawe jooju Abubakar Omar Osman Ali ku ñu wax Rabiha aslami yi nag li ma du wax ci itte ju kawe muy fokk nit ki day aj itteem ci ci yàlla loolu mooy itte ji gën a kawe rabiha al aslami yi kan ci saaba la dañoo indi alal ju bari mu jógee Bahrain mbooloo mi war yonte bi ku ne di laaj yonente bi jox ma nangam loo ko laaj mu jox kii ni ko jox ma nangam mu lijjale kii ni jox ma mu lijjale rabiha ñëw toog ci wetam waxu ko dara yonente bi ne ko doo laaj dara mu ne ko ndax suma laaj da nga moo jox mu ne ko mu ne ko li ma lay laaj mooy ànd ak bokk ak yow fu ma nekk yow ci aljan mu ne ko te amoo leen looy laaj mu ne ko déet loolu képp la soxla mu ni ko kon nag na nga ma jëmbalee ci sa bopp julli yu bari sujjóot yu bari fa a'inni ala nafsika bi kasrati sujjóot mu mel ni kon itte bu kawe it fokk nga nga nga jàppale ko nga firndeel ko nga nga nga firndeel ko ci lu lay may itte ji lu ko may nag ay mbéti kese lay doon loolu féeroo loolu ak xisab ku ñuy wax Modou Fall alxuraan loolu sëñ Saliou ci bopp moo ma ko nettali moo ma ko nettali boppam ni dafa ànd ak ay naa ñu ñëw ci sëriñ bi kenn ku nekk ci ñoom wax la doon ay tànkam mu ni Modou Fall yow lu say tànk mu ne ko man de sama mbokk yëpp dañoo mokkal alxuraan te mokkalu ma ko ma bëgg nga defal ma mokkal alxuraan te xam naa ne mën nga ko sëñ bi ne ko te amoo benn itte boo am bu dul boobu mu ne ko déedéet itte bi mooy sama itte baax na mën ba benn bi sëñ bi ñëw mu ni ko laqannaaka alqurana wa tafsira wa tawil jox nañ la alquran ak tafsir ak tawil daal ne ko taril dóor ci boobu ne ko taril mu tari ba tari ñaar fi biisib mu ne ko baax mën ngaa dem beneen ba mu def ko muy ñetti fan mën mën nga ko mën koy doxal kon itti ju kawe dëgg mooy seet la nga jàpp ni dafa jomb nga taxaw ni war naa mën a nekk ba noppi nag sàkku naka noonu borom ñeenti ngir yi seen étude yu kawee tax na fu tur islam àgg seen turu àgg na saa boo nee imam malik ñëpp xam ne ko boo nee Shafii yi ñëpp xam nañ ko boo nee Abu Hanifa ñëpp xam ne ko boo nee ahmad ñëpp xam nañ ko lépp étude yu kawee moo leen ko may moo dem ba seen tur lëkkoo ak turu diine islam naka noonu kilifa tasawuf yi Cheikh Abdul Xaadir Jilaani Abul Hasan Ash-Shaadili Cheikh Ahmad Tijaani ku ci ne fu diine àgg seen tur àgg te loolu étude yu la nag ab école la buy jàngale étude moom du ma ne dafa am étude kaw mooy day jàngale étude kaw ndax diggante ak yonent bi mat na junni at ak ñeent téeméer te ni sëñ Abdou Lahad nettalee ni dafa nekk di def li itikaaf ci jàkka ji sëñ Mbàkke Madina doon tabax jamono yi ci ko Xudoos yonent bi feeñu ko ànd ak ahlu badar bi mu laajee sëriñ bi ni ko loo bëgg dane ko ñii nga àndal ci laa bëgg a bokk mu ne ko ñi ma àndal day la ci daan boole nit faat ndax tuur deret moo ci daan boole te tuur deret weesu na te la la ci mën a boolewaat de ak ab nattu lay doon boo xam bari na ku dem ba toll fi nga toll ma feeñoo ko nii ma ko nii ma la feeñoo laaj ko lu mu bëgg bëgg lu li nga bëgg te bu ci duggee day dem ba ci biir du ko mën a dékku te boobaa dina dox yàqale ba faw te yow de da ngay sama waay bopp jox bëgg lu ma loolu ne ko ñetti moo la te doon xutba samaan bés ni ko tey mën nañ la ko tëbal nga doon nee na Sëñ Tuubaa ne ko loolu de baax na lool waaye nag sama gis jël na lool mel ni kon itte ju kawe laa dañ koy jàng ci sëñ bi ndax dañ sama gis bi jël na loolu mu ne ko kon nag bisimilah waaye na dëkk bi da nga ko aar ba lu la naqari mënu la fi fekk te mbir yi ci ay naqare ki ci kepp lay tegu ba mu génnee dëkk ba dem Mbàkke Bari fa la nattu ba tàmbalee mu dem juróom-ñaari at yu tegal yoo xam ne bis bu set danañ ko teg ci ab nattu loo xam ne dana ko fàttaloo nattu démb ngir ay coon waaye nag dem na ba la bëggoon mu am ko ba wax ne shahida lillahu bi ñu xamante ne étude yooyu man na lu ne yàlla seer na ne kenn laa ci ahlu badar mu yar ci magi murid yi yar ci ay doomam la tàmbali ci Cheikh Amadou ba ci suñ suñ la ku ci ne rek étude ju kawe nga yor suñ salu bokki di moo jaay dafa jóge dem ba am quatre-vingt-dix ans jënd vingt cent vingt tracteurs ku ne xam na ne bu fekkoon liggéey bi du ak jàmm yàlla du ko def waaye nag des noo dajale ñun ñëpp ñunu damaa bëgg ngeen góorgóorluwaat ci liggéey bi ndax yàlla kenn du ko woon ginnaaw ku ko woon ginnaaw kenn doo xam foo jëm deux cent vingt tracteurs boo amee quatre-vingt-dix loolu itti ju kawe mu mel ni loolu li ñu ci jànge rek mooy itteem ju kawe ak yit ñu jànge ci it ni liggéey jaamu yàlla ndax xadis yonte bi sansu dafa wax ni dafa am benn xadis yonte bu wér bu wax ni boo yoroon njëmbat di ko waaj jëmbat mu wóor la ni bis ngi taxaw boo ko mënee jëmbat bala moo taxaw na ko jëmbat gaawal rek jëmbatal bul wax mukk ni jeex na naa ci gën yor looy waaj jëmbat bis penc di taxaw nii na ko jëmbat bala balaa bis penc taxaw boo ko mënee ndax aw yo aw yow ca nekk kon bu ñu xoolee histoire àdduna ba mu jeex boroom itte yi li fi taxaw ñoo fi taxawal ala qadri ahlil azmi tëtil azaim ci kem ni boroom itte yi toll rek noonu la mbir yu kawe yi taxawe wa tati ala qadri alkiraami almakarim waaye boroom itte ju kawe dëgg-dëgg it day nekk euh, di dundal waxtoom waxtu yi mu nekk moom lay reconnaître du xool gannaaw du xool kanam ndax maa mada faata li wéy jàll na wala mu amalu xaybun lii ñëw xaybu la wala ka saatu lati anta fiha ba nu étude kawe dëgg-dëgg day dund waxtu wi muy dund rek jàpp ni mooy lépp dañuy dund wax ci yonent bi sama sama wax na ngay juróom a ngi ni yoo xam ne nga ko jël jëkk juróom na ngay jël sag dund jëkk sag dee jëlal sag wér jëkk ngay wérati boo amee ak féex na ko jël ndax ak ñàkk ak ay soxlaa yi ngi ñëw sag ndaw na ko jël jëkk ngay màggat ndax màggat a ngi ñëw booy dund it gaawal jël ko ndax dee ngi ñëw moo tax sëñ Saliou daan def day dem bay waaj a jóg jóg bi jafe ci moom boo ko bëggee jàppale mun la ëpp naa def ndax tëlee kenn du ko gàttandu tëlee kenn du ko gàttandu ndax saa bu ñëwee mat sëkk tëlee kenn du ko gàttandu ndax saa bu ñëwee rek doy sëkk moo tax am na ci borom xam-xam ñoo xam ni seen itte ju kawe agoon na ci am na ci koo xam ni toog na di jàng di liir soxna si ñëw ni ko reer bi mun ko xaar mu dem ba mu ñëw ni ko reer bi ba mu dem ba sonn moom soxna si dafa ñëw jël kuddu gi di tibb di ko saxal ba mu reeree ba nag mu jël ndox mi jox ko mu galande ko ba fajar mu ne ko indil ma reer bi mu ne ko reer nga bu yàgg reer na te yow ko ngir itte am ñoo xam ne seen itte agoon na si diir bi ñuy neenal sax bu ñu nekkee ci wanag yi sax dañ koy bañ fañ toll woon ci ab liir dañuy jox mu toll ca wetu duus ba di jàng ca kaw ñuy dégg ngir ngir ñu bañ a benn temps am na ñoo xam ne ci suuf yi daanañu wàccee alxuraan bis bu set am ñoo xam ne danañ ko jàng ñaari yoon ci bis bi am ñoo xam ñetti yoon am ñoo xam ñeent yoon am na ñu ko daan jàng ba juróom ñett yoon ci bis bi la lépp itte ji kawe daa mat a xam ngir fi nga toll nga natt sa bopp yow ba xam yow foo toll léegi lu am solo itte ju kawe nag dafa dàqoonte ak topp bakkan moo tax Sëriñ Tuubaa dafay wax ne al ak la xallil wal manaama yaa murit da nga néewal sa lekk néewal say nelaw yow tali bi wala tu xaalitil la si lay sifi te bul jaxasooy jaxasu ba mu njëriñ kon loolu mooy itte ji bala maa jeexal xisa bi ma sëñ seexum si saliw nekk li ne sëñ bi laata ko wax sëñ bi laata daf ko wax ni ko damaa demoon ci boroom daaru maam Thierno nee na maam Thierno ni ko mën naa laa jox aw fas mën naa laa jox dugub lu ne mën naa la jox waaye nag benn baat laa de jox boo xam ne fu sa bàyyi àgg moo ko fa eggal muy ko loolu mooy dana mu ne ko mooy jom jom sëñ Cheikh nee na sëñ Abdoulaye daf ko wax ne ko yow itam jox naa la ko jox naa la baat boobu kon nag ñuy daaneele ñuy tëje rek fukki mbir yoo xam ni Ibnu Xayim dafa wax ni fukki mbir ngi yoo xam ni dafa sànku kenn du ko jariñu ba jëkk mooy xam-xam buñ jëfewut xam-xam bi lu mu bari boo ko jëfewut dafa sànku dangaa sànk sa dund rek ci xam waaye seroon moom la sëñ Bay Jaxate wax ni xam-xam bu deeful jëfeeku sox bu tekku la yam xam àll boo bañ a bay xam wàcc wecc na ko xam àll ba bañ a bay xam wàcc wecc na ko jëf juñ sellalut dafa sànku ndax sonn nga ci te du am njariñ alal li fekk financé woo ko alal alal joo financé wut du am njariñ ndax du la amal njariñ adduna du la li fekk da nga koo teg ni rek amaguñ njariñ day sànku naka noonu xol bu ak bëgg yàlla nekkut xol boobu sànk nga ko naka noonu yaram wu sonalut yàlla ci jaamu ko liggéeyalu ko yaram woowu sànk dafa sànk naka noonu mbëggeel bëgg koo xam ne tënku wut ca ngërëmul ka ngay bëgg boo bëggee yàlla fokk nga jëf lu tënku ci lim bëgg boo ne bëgg nga Sëñ Tuubaa fokk nga jëf lu tënku ca bëgg-bëggam boo ko defee rek mbëggeel googu dafay sànk waaye du am njariñ waxtu it boo ko sànkee ba dabaataloo ci lu la rawoon fagguwoo ci lu ak seegutoon waxtu woowu sànkun desu ko jëriñu xalaat buy wëndeelu rek ci lu amul njëriñ misaal ma ci joxe mooy nit mën naa fanaan ci youtube bi internet bi youtube bu mu dugg jàll ci benn jàll ci ba ba yóbbu ci ñeent waxtu bu xoolee lu mu ci jëriñoo du ko yëg du gis lu mu dara lu moo tax xalaat buy wëndeelu ci lu amul njëriñ dafa sànku dafa mat di moytu naka noonu liggéeyal koo xam ni liggéey ba doo ci am payu yàlla te fayu ci àdduna pertement booy liggéey na doon koo xam ne danga nga ci yaakaar ci moom yàlla mbaa mu doon ku lay fay boo fi jógee teew mi te but loolu pertement naka noonu ragal mbaa yaakaar lu dul yàlla boo ko defee ragal googu ak yaakaar googu dafa sànku mun nag li ci gën a sànku nag mooy sànk ab xol ak sànk waxtu ñaari sànq yow mooy yées ci sànq yi ñoo ngi dellu di ñaan suñu borom mu defal ñu tawféex di ñaan yàlla mu defal ñu ak dégg ak topp ak jariñ di sant mbokk yi ci teewlu gi ak rafet njort gi di ñaan suñu borom lépp lu ñu fi wax ñu jariñoo ko di ñaan yàlla mu musal nu musal leen nangul nu nangul leen taalibe ba Sëriñ waa bëgg yàlla na ko sëñ yàlla defal yàlla na yàlla def ñu doon taalibe yi Sëñ Tuubaa bëgg yàlla na suñu def ñu doon jaam yam gën a tànn ci jaam yàlla na yàlla def ñu bokk ci ña Sëriñ Tuubaa di ndamoo ëllëg ci kanamu nit yàlla yëpp di ñaan suñu borom defal ndimbal defal tawféex defal dégg ak tubaab def asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam. bismillahi rahmaani rahim. waaw Uh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ Bass ñu ngi yëkkati suñu kàddu di la sant ci turu mbooloo mi yëpp. liggéey bi uh, am na solo waxtaan wi bari na njàngale yu mu ëmb. yàlla na suñu borom defal dégg ak topp. ñu ngi sant bu baax ci delloosi nga waat ne ñun danoo war a nekk ñoo xam ne uh, lu baax rek lañ war a bëgg. te lu baax la nuy bëgg it danoo war a bëgg la ca gën a kawe wax nga ne àdduna bonul yi fi nekk mënees na koo jëfandikoo waaye ku ci sa yitte yem da bokk ci ñi alquran wax ne dañuy mel ni ay bàyyi ma wala bàyyi ma sax tane leen kon jànge nañ ci ne ab dongo ab murit la muy wut dafa war a nekk la gën bu dee ci taalu bi gi buy xool la gën la war a roy bu dee ci bëgg-bëggi àdduna yi la ca gën la war a roy te mooy dara bañ a dox digganteem ak defar àllaaxiram ah. wut ca àllaaxira yi am solo la am na ay laaj yoo xam ne jot na fee rot ah, bi ci njëkk sëriñ Bas dafa mel ni seetlu la boo xam ne ci biir waxtaan wi dangeen a wax ne yitte nit balaa koy am dafay xam maanaam bokk na ci yi ñuy wute yitte xam mel ni boo ko doon natt ci baatub yitte woo dara da ci am oh. ci barab jàngale loo xam ne mooy gindi moom di ko teg ci xam-xam dafa mel nit ñi dañ koy won ginnaaw saa su ne dégg jógee dem xam xamu àdduna yitte la ci yu bari nit ñi fii lañ ko jànge diine bi ngay wax wala yitte xam-xamu yitte woo lu baax ndax dañoo am leneen lu dox suñ diggante ak moom ci seen seetlu walla ndax danoo bokk ci ñi nga xam ne dañoo sàggan rek ndax càggante ak doomu aadama la ndax seytaane la ndax lan la daal ndax dafay mel ni sëriñ bi ci dundam juñ junj na ne daanaka dara loo xam ne day dox seen diggante wala kenn kuy dox seen diggante ak wut xam-xam kooko ndawal seytaane la bal xalifaam la sax nag far kon ñu ngi delloo si loolu benn euh, laaj bu mel ni seetlu la ngeen wax ñu ci seen gis comme borom xam-xam lan moo waral ñàkk yitte jooju wala yitte ji jooju ci xam-xam waaw bismillah waaw ah, jërëjëf euh, sëñ loolu day mel ni xam naa bu dee xam-xamu diine bi ñu war a sàkku loom Sëriñ Tuubaa daf ko firi ba noppi daf koo leeral da leeral la tax ñu sàggan ci mooy seytaan neel pexam seytaan na neel dafa wax ni wa min makaidi llaini ayda axzaahu baaqin li yudimu fayda saddul muridin an taalim kon danañ xam ni pexe seytaane kon moo dox diggante nit ñi ak sàkku xam-xam bu leen di jëriñ ngir jëm yàlla mu mel ne kon seytaane moomu moom laa doon wax tey jii ni sëñ Saliou benn bi bis wax na nu ko nenu nit ñi de dañ dul bàyyi xel seytaane te lu ëpp lu yàq moo ko yàq daal ni sëñ bi musul na ci ay yoon ba indi nu bayatu wa bi saqaawati tulidi seytaana li gayri ma malaktuhu awtaan loolu kon pexey seytaan la waaye li ci desaate mooy euh, gidd buñ ko amul gidd ndax sëriñ bi wala boog ma tàmbali ci yonente bi sax yonente bi dafa fekkoon ay nit ñuy gëlas gëlas jëmuñ fenn mu puus leen kon suñu borom dafa jaarale seenu jàll ci kaw mu indi leen gidd bu leer jëmmi Sëriñ Tuubaa ku ne xam na ni bi mu ñëwee fekkoon kenn natt muy jëmuñu woon waaye itte ju kawe ju ko defal moo alimé alimenté nit ñi ba am itte di dox jamono bu ne nag ginnaaw bu pexe seytaane jàllee lañuy xañ itte mooy ñàkk ku nu giide ñàkk borom itte ju ñuy gis muy dox ci itte bañ mën a topp ay tànk waaye saa buñ koy am rek di jàll ndax nit ñi lu ci ëpp nag dañoo baaxoo sax di ba ba ñuy gis lu leen puus ñu jóg moo tax kon euh, loolu moom ndimbal yàlla waaye la war a doon nañuy ñaan su borom daal mu may nu lu mel ni lu lu lu mën a yeewaat itte yi pour nit ñi mën a am it ñàkk a jàng xam-xam nag loolu moom pexe seetaan la comme ni ko sëñ bi waxee rek jërëjëf bismillah li ci li ci topp kii ay bayit lay firilu dafa wax ne ñu firil ko mi ngi sàkku ñu firil ko raamal kitaabu kawnahu ma'i bila tafaaruqin wa umri qad qubila